safar gi commencé euh, boobaag léegi léegi mu am euh, ay bés euh, fii ci diwaan Bambey nag ñuy jox ay ñam yu ñu demee waaye am na ci ñoo xam ni leen yàlla xiir mooy mbale mi nga xam ne day bale Bambey gépp mu set wicc loolu nag li ko waral mooy roy ci njàngale Serigne Touba. ki nga xam ne moom mooy Mame Balla Mbaye mi ngi dikkaat euh, ci mbale moomu lay waaw lii nag moom mu ngi nekk mbooleem daayira yi nga xamante ne ñoo nekk Bambey wala boo nga ne ahlu Bambey yëpp te di ay murit wala ñu fi nekk ñëpp te bëgg lu baax ñoo taxaw ngir jëmmal li nga xamante ni moom mooy set safar gi ci turu coordination yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, cellule euh, commission extérieure yi nga xamante ni ñoo nekk ci daayira yëpp ñoo ŋànk liggéey bii nii waaye gis nañ ne yematut ci liggéeyu daara yi kese ndax boo xoolee liggéeyal borom Touba moom ñëpp dañ koo bëgg ndax seriñ bi dafa waxoon ne inna alladina saarau li xidmati falahum diyaar wastal jannati na nga defal ñi nga xamante ni dañuy njëkkante aw yiw di ma liggéeyal ay njënn ci aljanna loolu tax na bi ñëwee fii ci liggéey bi xàmmeewuñu ku bokk ci daara ak ku bokkul ci daara waaye xamuñu tamit koo xamante ni eh, daara sàngam la bokk wala daara sàngam nga xamante ni ñu ngi sant jëwri ni nga xamante ni ñoom ñoo diriger liggéey bi buñ ci tuddee ku mel ni kii sëñ Cheikh Anta dana yóbbaale ñeneen ñi ci des sëñ Ibrahima Mbaye tazaru subaan sëñ Mbégéré sëñ Lamp Fall Baye Fall ñooñ nga xamante ay nit lañ ñoo xam ne ay soldaar lañ ñoom ñoo jiite liggéey bi xëy na ñoom nañ fee nekkul ñu nekkal leen fii waaye ñoom ñoo jiite liggéey bi di ci dox doxinu am solo ñu ñaan suñ borom dooli leen kàttan fàttewuñ sëñ Mbégéré sëñ Basiru ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy comité bi nga xamante ni daanaka ñooy piloté li nga xamante ni moom mooy mbalem Bambay nga xam ne mbale mi nekkul mbalem daara sàngam xëy na lu baax loo gis am na ci daara jum soso wala am na ci bopp boo xamante ni moo xalaat moom kenn defalu ko li nga ko bëgg a defal moom mooy xool li mu bëgg nga defal ko ko dana ma jàpp ne lii nag dafa bokk ci bëgguk sëriñ bi. Mame Balla Mbaye moom mi nga xam ne itam si njiit la bokk mi ngi ñëwaat euh, dañu dañu xamle yan yan bërëb ak yan bërëb euh, la ñu jàppale ngir mën a bale euh, Bambey gile. bi nga xam ne xëy na dañuy xool dañoo diviser daayira yi daara ju ci nekk ñu utal la bërëb yu ngeen di tàmbalee lu mel ni ki waa Nour Daareen yi bu Kër Sakura ak waa daayira Kër Saakura bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Miftaahul Muna ak ñoom ñoo tàmbalee ca sorti ba di ñëw sorti Touba ba foofu lañ tàmbalee di ñëw waa Fatul Fata Tazawudu Subaan ak yeneen ñu ak Nuru Daareni bi nekk lew na ñoom ñoo tàmbalee côté tribunal ba jëm si station Shell bi daayira Baye Fall ñoom ñoo tàmbalee ci beneen sortie Ndakaaru ba jëm si fi nga xamante ni moom mooy garage xam ne dañoo daje ak mbokk taalibe yi nga xamante ni ay nit lañ yuy dund sëriñ bi te nekkuñu sax xëy na ci ay daara waaye ku ci nekk ba nga xëyee gàddu nga la nga am ci jumtukaay taxaw sa buntu ko tàmbalee fa daje ñoom ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi kon ñu sant ñooñu ñëpp. ki nga xam ne moom mooy euh, Cheikh Anta Diop moom it bokk ci ñi nga xamante ni euh, moom mooy euh, ci njiit yi. yore yi nga xam ne moom mooy wàllu euh, mbale mi moom mi ngi xamle jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy jànkonteel ci euh, mbale mi la. waaw euh, ab liggéey nag boo koy soog a tàmbali dana bëri ay jafe waaye gis nañ ne boobaak léegi ñoo ngi góorgóorlu ci jéem a saafara jafe-jafe yi ndax ba ñu soog a door boobu amoon nañ ay problème yu matériel amoon nañ problème mu ay camion waaye boo xoolee dina édition bi am na ci ay personnes de bonne volonté yoo xamante ni ñooñu abal seen camion abal seen i peel ñu dem tibbi eh, suuf man tasal tasal ñu ko am na ci ñoo xam waa bu comme mel ni waa mairie tam bagage yi nga gis nga gis nii ñoom ñu ko yoral bi fi waa ICG eh, ñëwee itam Bambey fii gis na ne sax mbale ñu ngi ci ànd ñu ngi ci ànd ak ñun xam ne ñaari oto yëpp ñu ngi topp suñu ginnaaw booba léegi ak seen personnel ak waa mairie ñi xam ne ñooy seen personnel waaye itam jafe-jafe yi moom moom comme ni ma waxee sànq mun a ñàkk ndax garage bi bëri nay kàmb comme ni ma sànq te it na ndox ci jamono nawet lañu nekk kon laaj na sëkk te ku wax sëkk da nga laaj foo tibbee suuf ab mooy yooyu tibbee suuf wala fekkee ne amoo foo tibbee suuf fii ci Bambey comme cas bi ñu dara ren ji ndax ren amuñu fu ñu tibbee suuf ci Bambey wër nañ fu ne dañoo bëgg mu wëree ba am fu ñu tibbee wax ak autorité yi bu ñu joxe autorisation jëm tibb waaye bi ñu wëree gisuñu fu ñu mën a tibb ci suuf dañoo ne dañoo war a jënd ndax ay murit lañu te it ginnaaw ñoo soobu mbale mi waruñu cee deltu ginnaaw te mbale mi ba mu sëkk rek mel na ni daanaka balewuñ dara moo war a waraloon ñu ne woon dañuy jënd ak nu maa demee donte yoruñu waaye pas-pas boobu lañu am ba mbokk taalibe bi dugg ci biir eh, bambay eh, kurti kurti ba am na lu ñu jotoon dajale matul dara nag. waaw matagut dara waaye nag ñu ngi ci ba léegi waaw ah, idée si sëkk yi bàyyeeguñ ko kon loolu jafe-jafe la ndax matagut euh, Cheikh Anta mi ngi ñëwaat ba tey ci nga xam ne ni euh, jàpp nañ ci ak mbébét gi nga xamante ni euh, fii ak diwén ñoom taalibe Sëriñ Tuubaa yi am nañ ngeen mbir mi mën a yem ba. waaw ndax ay murit ni ma wax sànq bu sumbee loo xamante ni liggéey Sëriñ Tuubaa leer na lii liggéey Sëriñ Tuubaa la am na loo xamante ni ay xalaat xam dañ ko ci am à chaque fois fexe bay améliorer bay améliorer idée bi moo tax jàpp nañ ne incha allah déwén jafe-jafe yi mën nañ ko bañ a am nga xam ne ñoo ko génneel suñu bopp jafe-jafe yi ñuy am yëpp ñoo ko génneel suñu bopp ci liñ man ndax bu dee ay saatu suuf day jar quarante mille wala quarante cinq mille mën nañoo jël ci mbokku taali bi nga xam ne ñii ñëpp tey suñ tubaab dañuy noyyee ku ci nekk ñu sas la dara wala ñu ay groupe sas leen dara wala ñu def chaque semaine téeméer wala sax weer 1000 francs xam ne dañuy ubbi groupe whatsapp tuddee ko Mbalem Bambay Safar xam ne dañ ciy dugal mbokku taalibe yi xam ne képp kon liggéey bi ñor na la rek booba sax weer nga tàbbi loole bu nee ba at mi jeex ba dool bañ toll fii ñu toll nii buñ ko dajalee daañ am dara kon amagul nañ ci idée boobu te incha allah nañ ci gën a xalaat gën cee yaatal bu baax a baax a baax. fi xam ne nag moom mooy daanu Bambay. li nga xam ne moom mooy daara yi Serigne Touba yëpp dañoo dajaloo nekk benn say ngir nag mën a bale fi nga xam ne moom mooy euh, Bambey ngir nag mbir mu mën a set wicc mu ñetteel bi yoon ñu koy def euh, fii ci Bambey loolu sax euh, tax ba nga xamante ni ñoom ci li nga xam ne mooy safar gi di waajal magal gi fii ak le 26 euh, septembre 2021 loolu nag moo nekk seen njàppale li nga xam ne moom mooy jéem a roy li nga xam ne mooy mbindum sëñ Touba roy ko itam ci nga xam ne moom mooy waa Touba yi nga xam ne chaque année dañ koy def foofu ca Touba ñoom ñu indi ko fii ci Bambey ngir nag mën a jàngale roy ci njàngalem sëriñ Touba